association bu tudd Talibek di di di xalaat di gëstu ci mbirum euh, daara yi ak ci mbirum taalibe ki nga xam ne moo nekk ca bopp ba mooy Mohamed Diakhaté moom taalibe la woon léegi dem na université ba am fa master nee na man maay bàjjan bi ma nangu ko nag ñëw ci biir dëkk bii di Tiwaawan nga xam jàngum alxuraan daf fi am solo ñuy réfléchir seet mbirum daara yi parce que coow li bare na lan la ñuy def ci daara yi ndax daara yi dañ leen di euh, bunduxataal ba ñu genn fi loolu mënul am waaye li war a am mooy ñu saytu leen xool leen seet naka la ñuy defee balaa ñuy euh, mën a juge nag parce que daara boo xam ni daara boo xam ni wax nañ ko nii nga fii nga war a jaar jaaru fa moo tooñ waaye tant loolu amul nañu xam ni daara fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi ndax jikko yu rafet yi muy def ci xaleel daara yi ak seen solo képp ku mën a jël sa loxo dugal ci biir bàyyiwuñu kenn fépp fu mu mën a dooree fu mu mën a jógee nit ñi dugal ci seen loxo ndax daara yi mën a dox te état bi formaliser daara yi état bi xam ñaata daara moo am